électorale mm. déjà ñun euh, liñ ci mën a euh, am comme jàngat mooy l'expérience qu'on a eue mmh. parce que umpul kenn au Sénégal que aujourd'hui yàlla def na ñu nekk le premier euh, bi génn au tirage au sort mmh. deuxième bi yàlla def le lendemain de cela ñu valider suñu candidature mais validation boobu dafa am lu mu àndal loo xam ne lu ci nekk ñun euh, mobiliser nañu 67000 parrains mais du lépp la ñu validé. Mm-hmm. te ti yi nga xam ne nii validé wuñ ko environ 6000 lan la ñu génnal comme raison moom mooy euh, inconnu des parrains inconnus ou bien introuvables loolu xam nga ñun bu doon sérieux wuñ sur le combat euh, électoral. kon dañuy xool ne rek jàll nañu rek suñu yoon nekku ci nañ célébrer. Mm-hmm. Mm-hmm. pour vous dire comment suñu parti surtout Boubacar Camara est sincère. Mm-hmm. dans son dans la dans le combat de de de la de la fiabilité du processus électoral ñu ngi nekk di càmbar six mille parce que suñu bos la ñu xam. lan moo tax ak loolu fan la jóge justement pour le processus électoral. donc dañ jàpp ne aujourd'hui euh, c'est encore. très très rien n'est clair le processus électoral est biaisé sur plusieurs raisons d'abord boo leen xoolee la carte d'identité nationale et le fait que dañu boole ñaar ñoo ñëpp sur le même élément muy carte d'identité euh, nationale a carte électeur bi ça pose un problème oui déjà le nom de père ak ak ak le nom de la maman donc bu ñu jëlee utiliser le nom de de de de quelqu'un du ñu xam exactement est-ce que c'est la même personne on a eu l'expérience à Ranérou où le taux d'inscrit a été supérieur au à la population yooyu gis nañ ko. Mm. war nañ ko càmbar autre chose mooy euh, le fichier électoral aujourd'hui c'est un fichier opaque mm. opaque xam nga Sénégal dañuy am tendance di wax euh, ne euh, dégg naa récemment euh, ci benn interview Aly Ngouille Ndiaye mu ne le fichier électoral audité woon nañ ko et cetera il ne suffit pas seulement d'auditer le fichier électoral il suffit il on a besoin d'auditer le process mhm. parce que en fait c'est quoi boo amee benn fichier électoral nga am benn recueil boo xam ne le candidat ci parrainage moom lay jëlee information yam yëpp mais loolu rek yemul après da nga leen di comparer mhm. maintenant comparaison boobu processus la processus boobu la ñu war a càmbar dafa am benn outil en génie en yu ingénieurs yi di utiliser bu ñu tuddee am AMDEC analyse de modes de défaillance et de criticité des processus moom mooy li anglais di wax FMEA yi failure mode and effect analysis mooy dañu war a jël process bi yëpp step by step xool tout les failles yi nga xam ne nii mun na ci am loolu bu ñu ko defoon de façon transparente dinañ gis exactement où se trouvent les problèmes parce que amul sens quand même benn fichier électoral boo xam ne dañu ne Euh, population baa ngi fi nit ñaa ngi fa ba pare <laughs> nit ki am kartam ba pare ñëw ñu ne la nekk fa. six mille personnes six mille personnes sunu cas. sunu cas Baka euh, sunu cas euh, Birama sunu cas rek. ak ñeneen ñi boo ko rassemblé mais c'est catastrophique. six mille mm-hmm. beneen chose mooy la gestion de de de de de de de des élections boo xoolee aujourd'hui depuis Macky Sall en depuis Macky Sall ba léegi c'est très partisan. si vous vous rappelez du temps de Ablaye Wade nous avons nous avions un IGE Cheikh Gueye ah boo xam ne gars yi dañ ko ko imposer mu dàkk un en charge de de l'organisation des élections mais depuis Ablaye Wade qu'est-ce que nous avons depuis Macky Ndiaye un partisan ah euh, euh, euh, Pathé Niaw mm. Daouda Ablaye Daouda Diallo ah Aly Ngouille Ndiaye Antoine John qui a été même récompensé oui et cetera et, l'actuel Sidiki donc déjà loolu rek déjà c'est tout un problème euh, doyen wax na léegi maintenant <laughs> l'illégalité du décret euh, de la de de de, de la Sénat qui peut causer un report sur les élections et pourtant notre candidat Boubacar Camara bi mu doon théo bi mu doon théoriser bi mu doon théoriser le report consensuel je souligne trois fois le mot consensuel c'était justement pour bañal ñu lii maintenant les gens en parlent moom boo leen boo leen gisee waxatu ci parce que justement dafa dafa analyse yi def nii moom daf ko def bien en avant comme toujours il est toujours en avant de sa génération. mais boobu fekkul woon ñu dissoudre Sénat. non mais dama la bëgg wax mais boo waxee wax nit ñi nii hëpp du ci dal. mais tu mais on c'est ce qu'on a fait c'est mais mais xam nga waxatuñ ci dama la bëgg wax ne que Birama xam nga ñun waxatuñu mais nit ñi ñoo ciy wax. pour vous dire que. mais personne ne souhaite un report. mais le le kii personne non, ne souhaite. non non mais lii mun na. possibilité la mais kenn yaa kenn ñaanu ko yàlla. exactement mais d' ailleurs ñun nous sommes prêts. dama la bëggoon jox exemple rek ne pourquoi il a théorisé cela c'était justement pour mettre de l'ordre sur le processus électoral mm. parce que ñu ngi ci dem y en déjà qui commence mm, à en parler ça profite à dama la bëgg wax ne yaa ngi mm. focus sur le mot report dama la bëgg wax ne que report bi mm-hmm. c'était en fait c'était quoi la raison c'était pour ñu càmbar le processus électoral mais xam ngeen ni Sénégal report élection présidentielle man xam nga été focalisé sur le report mooy le fait que on allait donner à Macky un jour de plus mais loolu mosu ko wax il n'a jamais dit dans sa proposition que dañuy bàyyi Macky Sall mu toog un jour de plus maintenant mun nañ xool quelles sont les façons pour ñu am transition boobu bref